jërë ngeen jëf mbokku internet yi yéen ñu seetaan suñu site bi di firi info point com tey nag ñu agsi ak yéen suñu revue de presse di titre ñu njëkkee ko le soleil le soleil daal di ñu xamal ni un nouveau pilote ab bord Alioune Badara fal nag moom nag am na ki nga xamante ni moo ko daal di remplace di Ibrahima Kane waaye nag benn appel à corriger l'erreur des territoriales moom benn nag lépp li nga xamante ni defoon nañ ko ay jumte wala ay ñaawteef ñu ngi ko bëgg a taxawal ngir lépp ñu teg ko ci yoon mu daal di baax kii di Kalidou Koulibaly nekk ci club bi naan Naples waaye jàppale jamono bi ñu wax ak yéen Kalidou Koulibaly Chelsea moo ko gën a jege ci mu dem fekk ci ki nga xamante ni mooy Mendy l'observateur L'Observateur bu léegi dañuy daal di ne nouvelle arrestation dans l'affaire de la force spéciale loolu nag L'Observateur ma ñu ko daal di xamal le décès le décès n'a ñu Dadi di gis foofu le décès d'Air Sénégalaise moom départ imprévu pour insuffisance des résultats des instructions du chef de l'État la perte de marché de 4 milliards francs CFA loolu nag li li ñu ko daal di l'observateur waaye ñu àgg ak yéen bés la jour bés la jour daal di ñu xamal ne Air Sénégal limogeance de Ibrahima kan atterrissage forcé loolu nag bés la jour ma ñu ko di xamal le leader des Faramareen en concert à Kaolack moom wali sec moom nag mooy borom Saloum jàpp leen loolu bés la jour ma ñu ko daal di xamal L'As Quotidien L'As Quotidien bu léegi dañuy daal di waxal ne a le dc Ibrahima Maskan Viré Mimi Touré ouvre les hôteliers Mimi Touré dafa may ne buntu hôtel yi tëjoon yëpp mi Touré daal dina koy ubbi bokk gis-gis liggéey lance la bataille de Thiès bokk gis-gis nag ñoom san liggéey daal dinañ koy daal di commencé Sud Quotidien Sud Quotidien dañu xamal ni Air Sénégal muy la président Sall dégante monsieur le président moom nag dana taxaw ci Airu Sénégal ngir daal di koy defar direct si néew direct di naan see luus moom nag ki nga xam ne mooy ministre de l'extérieur Aïssata Tall Sall nag moom lañ gis seen nataal bi mu gën ci fës loolu foofu nag ñu ngi direct si néew moo ñu ko daal di xamal les hôteliers ouvertes les hôteliers ouvertes def mel ni hôtel yi nga xamante yëpp daal di nañ tëj ubbi nañ ko waaye nag ñu ngi gis si nataal bi kii di Barthélémy Dias Moustapha Diop ak Mamadou Massali ak abdu Mbacké Ndaw ñoom lañ daal di gis ci nataal bi ñu gën ci fës loolu Wolf Quotidien Wolf Quotidien vous l'avez dit, les élections législatives euh, en scrutin à risque Élections yi nga maintenues. a dem dafa suñu dans koy foye wala nu leen neex liñ koy pour campagne dans le net donc les candidats à la quête du dafa mel ni ne campagne bi ci net bi la gën a ëpp boo duggee Facebook YouTube Instagram ñëpp da nga fa leen daal di seen moo tax campagne bi daal dafa mel ni ci net bi liñ koy daal di defee avec, avec venir à Arani, Gomis perd la boussole en Bretagne donc Gomis de mel ni ne moom nag dafa li ci Bretagne bobno mu war les échos les échos daal Kamal vers la libération des suspects les échos ma d'adir Kamal. daal le président de l'ordre le président de l'ordre des médecins coupe la pointe de deux donc ordre national et

discours discours ethnicien séparatiste moom nag discours am dafa mel ni ne dafay am ñi nga xamante ni da leen di séparer waaye nag bu ñu seen campagne pour les législatives à Linguère garantie et assurance de Mimi Ali et Samba ñoom nag daal dina leen seen ñu daal di jàkkaarloo enquête bu léegi dañuy xamal la dodol de campagne campagne bi nag gaa yi ñu ngi koy daal di doxal ubbi na commencé na moo tax kenn ku nekk fi nga yaakaar yaa ngi fay dem ba bi écurie occupe le terrain bennoon nag dafa mel daa fees dell si terrain bi fépp lay wër fépp lay daal di dox desut fenn waaye le quotidien quotidien bu léegi dañ na xam ne vip dina audience dafa mel ni euh, ki ñu ko daal di xamal mooy quotidien le quotidien moo ñu daal di xamal sa sa gaz c'est Macky dafa mel ni Macky Sall le président de la république du Sénégal moo yore gaasu Sénégal bi nag moom nag moo war a xam dañ ko war a exploiter critique la critique daal di ñu xamal ne benn bokk yaakaar gaffe yeewi servir loolu nag benn bokk yaakaar ma ñu koy daal di euh, xamal bu ñu jógee foofu libération libération d'un trafic d'actes de naissance euh, sénégalaise donc la filière congolaise Zerkné euh, le nag libération ma d'Adi l'info daal di ñu xamal le maire donné la solution donc maire yi nag daal di ni dox li nga campagne bi ngi lépp donc Benno Bok Yaakaar nag ñoom nag ñu en roue libre à l'inger it raneru ñam nak ñi ngi nekk si diggante euh, Linguère ak ranelu li ñu nekk nak di daal di dox ngir jëmali san walu campagne waye nak japp len euh, c'est Serigne muntaka kan ma fa dem di pap pap job nak mom mu ngi jakkalo ki nga xamanteni moy khalifa general ku kullu la daal di waye nak japp len leen leader yi nga xamanteni moy walu wàllu ak yeewi ñoom tamit nak ñi ngi daal waxtaan bu teral quotidien ba léegi dañ naan des sortants de listes recevoir leur diplômé ñi nga xamante ni nag ñoom daal di leen génn campagne général générale Idrissa Fall et ex campagne l'exergue ñoom nag daal di nañu génn moo tax gars yi ñi ngi leen di jox li nga xam mooy sanu diplôme yi waaye réew mi quotidien bu léegi daal di ñu xamal ne ah la première explication lu ñu njëkk réew mi quotidien daal di koy xamal kii di gànn gay nag moom mu ngi euh, préparé pour war a génnee jógee foofu club boobu di Paris Saint-Germain wala demaat beneen club réew mi quotidien bu léegi dañuy daal di xamal ne fa euh, baara doli à Macky ñoom ñaar nag dafa mel ni combat bu daal di taxaw la bu ñu wax mbër ñu seet naan kan moo ci war a daane li ñu war ji Stades Le Quotidien dañu xamal Diallo et Gana ñoom ñaan nag ñu ngi nekk ci yoon ngir daal di jógee ci club bopp di Paris Saint-Germain waaye kii di coach Aliou Cissé doon El Tactico moom Aliou Cissé El Tactico nag daal na taxaw ngir waajal mondial yi ñu war a jëm lii Quotidien daal di ñuy xëya mu ne troisième jour de campagne pouvoir et opposition ñoom ñaan nag jàkkaarloo ni ñu xool kan mooy amee ji ndam loolu nag Dakar Times daal di ñu xamal nag Dakar Times daal di ñu xamal ne Mamour Cissé président du Parti socialiste démocratique PSD, Djantibi à eh, Sonko, la sauf de pouvoir, la haine et l'esprit de véhéance l'habite ñoom nag ki ñu ko daal di xamal di Mamour Cissé sunu làmb daal ñu xamal ne Lac de Guiers 2 nag moom taakal franc Lac de Guiers 2 mu ngi jàkkaarloo di wax ay fara ay kàddu yoo xamante ni ko déggee dana doy waar loolu loolu nag mm, Lac de Guiers 2 mu ngi koy di wax fan sunu làmb 24 ne

moom Ami Dia nag dafa mel ne dañu ko mujjee eh, téye nag démb l' adversaire majeur de Benno Bokk Yaakaar eh, et e, trio mm, Yewwi Wallu et ànd jëmmi jikko yi ñun nag ñoom daal ni taxaw ngir jàkkaarlook ñi nga xamante mooy ah, parti au pouvoir source a bu léegi dañu ko mel ne confidence exclusive moom source a moo ñu ko daal di xamal le gros pic de Mimi ndekkinti waa benn yëpp daal dinañ jàkkaarloo di war xamutuñ fu ñu war a jëm fépp fu ñu xelaat rek ñu ngi fay daal di dox ngir jëmali wàllu campagne ngir élection yi yu ñu war a jëm le 31 juillet 2022 ñoom ñi am si ndam waaye dana métti lool ñoom ñoom ak opposition ba opposition ba nag ñoom tamit fenn fuñ fépp fuñ mënta xalaat ñu ngi fay daal di xam dem kon nag loolu moo nekkoon tey suñu revue de presse du titre kon nag ñu bàyyi leen ngeen daal di koy déglu